bismillahi irrahmani irrahim qul auzu bi rabbi nnaas maliki naas ilahi naas min charril waswasil xannaas allazi yuwaswisu fi suduri naas min aljinnati wannaas muhammadun rasulullahi walazina maahu ashiddaau alal kufaar ruhamaau baynahum taraahum rukaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan simihim fi wujuhim min asri sujud zalika masaluhum fi tawret wa masaluhum fi linjil ka zarin axraja shatahu fa azarahu fastaxlaza fastawa ala suuqihi li yaxisa bihimul kuffara wa adallahu lazina amanu wa amilu salihat minhum maxfiratan wa ajran aziman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 bu mel ni ba sëriñ ba nuyu woon sëriñ Ibra Sarr Njaañ nuyu boobu noo ngi ñaan ñu bokk dégloo ndax sëriñ bi lépp lu mu mas fekk lislaam santaane ko defe na ca noo xam ne ba lislaam jóge ba léegi kenn mënu ko nuyoo rek sëñ Tubaa ko dàqoon ñëpp nuyoo laa ne rek asalaamu aleykum sëriñ tubaa daq ko yàlla bind dane sëriñ Ibra Sarr Njaañ maa ngi lay nuyu nuyu boo xam ne mi ngi tol ni laylatul xadar toll ci guddi yi mës ngeen dégg nuyoo boobu ni laylatul xadar ëppee doole guddi yi nga xam ne xayrun min alfi shahrin maa ngi lay nuyu nuyu bu toll noonu xoolal lim dugal lépp ci biir benn nuyoo dugal na ci darajee leelatul xadri dugal ci biir nuyoo bi tanazzalul malaaikatu wa ruuhu fiiha ndeke siñ Tuubaa bu la nuyoo loolu yëpp day tàbbi ci biir nuyoo boobu yàlla na nekk ci ñun noo ngi leen di ziyaare bu baax di leen sant bu baax di jëkke ci cant gi sang yu tedd yi fi teew te ñëw wuyu si Cheikh Moustapha moom sëriñ Abdou Sakkour muy mbokkam yu tedd yi ak ñu baax ñi fi ñëw muy sëriñ Mbaye Fall ak Serigne Assane Fall mu Serigne Modou Aminta Fall ak sunu sang bu tedd ah, waaw moom laay bëgg a wax sëriñ bu Fall moom sëñ Mbàkke Fallum sëñ Modou Mbenda moom Cheikh Ibra noo ngi nuyu itam am sa jaxate ngir delloo ko njukkal ak fàttaliku sëriñ Xamsatu jaxate lim doon ci sëñ Tuubaa di ñaan yàlla ñi fiy jàng xaside yëpp muy sëriñ Paate Mbaay ak sëriñ saaliw Seck ak ñi fi waxtaan yëpp muy sëriñ Jaw ak mbooleem ñi fi teew muy sëriñ Nabil Gaaj ak sëriñ Saaliwu Njaay mi nga xam ne moom moo jiite kuréelu Cheikh Ibra Fall bi fédération noo ngi nuyu ñëpp bañ a fàtte kenn di sant bu baax a baax ci ki ñu tuddee bés bi muy Cheikh Ibrahima Mbakke maam Thierno Birahim di sant bu baax ci ki ko ko tudde muy sëriñ Moustapha Fall ibnu Serigne Abdou Sakkoor di wax ne balaa ñuy dugg ci loolu dugg ci borom daaru man dama leen di wax ci tàmbali bi ne borom daarul mooti li ma mën a wax ci digganteem ak Cheikh Ibra waxuma ne kenn mënu koo wax waaye ñi ko mën a wax bariwul te dinaa leen wax li tax mooy Seydina Ousmane Mbakke nóoréñ lim ma wax dama leen di jox tegtal ngir wan leen ne bés bi bésu borom daaru la waaye bés bu am ci lislaam bésu Cerno Birahim la lu baax lu nit def ci lislaam borom daaru nga ko defal te dinaa leen wax li tax waxuma ko pour jay kenn nag ndax man laajuma kenn dara damay wax ni li sëñ Moustapha def jamono bii ak taalibe dafa rafle xàjjale ci biir kër yi bari yàq bi bari ku wéet duufal sa bopp suufeel ñi ci def te kenn ku ne duuf nga kenn ku ne am nga lu doy am waaye suufeel keneen nag la sëriñ bi bëggul tëkkale it sëriñ bi bugg ko dendale ay seexit sëriñ bi bugg ko sëriñ bi li mu bëgg ñu xam ne moom kenn la fa dara nekk moo ko fa def te ci yàlla la ko jëlee def foofu mu jeex Cheikh Ibra nee na loolu moo tax dama leen di wax ne leen Cheikh Ibra nee na taalu bi day yor jikkoy naaru góor naaru góor xameewul borom ak kañ ko abal ko war ci kawam te toog ni nga war a toogee rek mu yóbbu la dëkk ba nga bëgg a dem nañu dellu si taalibe googu sëñ Moustapha li mu def daf ñu jàngal ne borom daaru soo ko xësee tudd xanaa xamuloo ne tudd nga yoonu murit yépp te sëñ Tubaa ko wax dégg ngeen ko samay waxtaan nee na boo tuddee na ku sant Mbàkke tudd nga maa ngi leen di jox euh, lii ci télévision la jëm ma bëgg ngeen déglu waxtaan bu baax sëriñ Abdou Cissé mooy adjoint au maire Parcelles Assainies fan yi daje nañu di waxtaan maak moom déglu leen ci Cheikh Ibra ak borom daaru mu ne ma sëñ Maxtaar yaa ngi fàttaliku ba ñu bokkee tëdd maak yow daaru muuti ci kër Seydina Ousmane ma ne ko maa ngi koy fàttaliku kay mu ne te sëñ Ousmane dugg ci fajar gi ci néeg bi euh, télévision laay waxee de ko weddi demal nga laaj ko ko ne ma sëñ Maxtaar Abdou Cissé ngi dégg keneen a ngi dégg mu ne ma biig de Cheikh yàgg na fii lool billaahi wallaahi taala biig Cheikh Ibra yàgg na fii lool xam nga lu ko fi andi ma ne ko déedéet mu ne fu nitam fanaan yor na kàttan goo xam ne fu nitam fanaan dana ñëw tiim ko ci guddi gi balaa bët set ni àdduna toll sëñ Ousmane ma ko wax ne ma taxaw na fii lu yàgg di la xool laaj leen ko Abdou Cissé moom Seydina Ousmane mooy at adjoint au maire Parcelles Assainies ñëw naa nuyu ko benn guddi moom Seydina Ousmane lii Paate Mbaay def léegi di sikkar am ñuy sikkar ci àllu daaru musti bi ngelaw li di àndi sikkar si ma nuyu ko ci guddi gi mu ne ma Maxtaar ma wuyu ko mu ne ma dégg nga ñoo ñuy sikkar moom Seydina Ousmane ma ne ko waaw dégg naa koy mu ne ma maag yow ñoo ñooy suñu waa kër maag yow waa kër Cheikh Ibra Fall lañu sama waa kër nag waa kër noo lañu kon Thierno ak Cheikh Ibra Fall li ñu séq dongo yu ndaw yi xamuñu ko te dañ ko loolu lu ko gën a xóot am na te kii may wax doomi borom daarul mooti la ma bëgg ñu teelu bu baax te déglu bu baax li kenn ku baax kii doon wax sànq naan sëñ mataar sëñ Matar li mu doon wax sànq nan fexe ba jële fi dara ndax bàyyi Cheikh Fall xattaaba toog naa mu nettali ne man mii di wax ak yéen ca Daaru Xudus ànd na mag Serigne Touba topp ci ginnaawam ci kër gu mag duggaguma ci waxtaan wi damay def lu mel ni kii rekk ba ñu xam tur wi lu ko waral ak kan mooy borom daaru mu ne ànd na maag Baye Cheikh laa ko dégg ci làmmiñam de mu ne ànd na ak sëriñ tubaa topp ci ginnaawam muy dox ba mu yàgg loo xam ne mësumaa gis mu def ko mu summi ay dàllam moom Serigne Touba nee na ma jël sama ñaari baaraam roof ko ci dàll yi topp ci moom ñu dox ba mu yàgg mu ne ma tegal ma teg dàll yi sëriñ tubaa sol ko déglu leen baax li may wax de. nee na mu ne ma li ma def de xanaa jaaxal na la Baye Cheikh ne ma ne ma ne Thiel mu ne ma Thierno laa doon wormaal noonu moo tax ma summi samay daal dama koy jub sunu borom ne ma li nga bëggul lu dul moom muy alxuraan mooy jëmm ji toog wormaal ko sunu borom moo ma ne naa summi samay daal wormaal Thierno kon kooku ku ko tuddee bés. na la wóor ne def nga lu neex sëriñ Tuubaa gis nga ku mës a jóg dem ci borom daaru man sëñ Ousmane wax na ma lu bari ci borom daaru ku mës jóg jëm si ci borom daaru xam nga lu mu lay wax te bokk ci kër sëñ Tuubaa borom daaru danaan la def nga loo xamante ne tey ji mbigum sëriñ Tuubaa bu ko gën a kawe amul tey ku jëm si ci man rek sëñ Tuubaa bég na ci yow Cheikh Abdoul Ahad sunu gaynde googu nee na yoonu mu li ma ci def lépp ci ñaari kàddu yu ma dégg ci borom daaru la sëñ Abdoulaye nee na dama ko siyaare ji mu téye ma fa ay fan nee na bi ma demee bay ñibbi borom daaru ne ma xaalis bi bari na fi su ma la ko joxee day jeex koom mi bari na fi waaye Cheikh Abdoulaye naa la jox yóbbal boo xam ne moo ëpp doole ci yóbbale xam nga sa baay lu mu ëppale ñëpp a nee na mën a ko déedéet mu ma jom ak fit jom ak fit ne ko ku yàlla bind sa baay ko ëpp jom moo ko ëpp fit Cheikh Abdoulaat nee na keroog laa jël ñaar yooyu fasumaa yéene tàggoog moom ba fekki sëñ Tuubaa ne lu ma def ci jom ak fit laa ko def kon kii ñu tuddee bés bi moom rek buñ ko tuddee woon bés bi ñu ñëw toog ñu ne borom daaru lañ tuddee bés bi rek ñëpp jógaat dem na la wóor ne am nañ li ñu bëgg lépp ndax sëñ Tuubaa nee na borom daaru Ceerno sunu borom may na la daraja bu toll ni bu jaam ñépp maase woon di jaamu yàlla ba yàlla gërëm leen nga taxaw ne ko bu ci kenn texe kenn du texe man ne neelu ma sëñ bi de sëñ bee ko wax ne ko bu jaam ñëpp mooyoon yàlla ba suñ borom mere leen soo taxawee ne ko jéggal leen mu jéggal leen kon kooku sëñ li mu def xam na ko noo ko ci sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan barke borom daaru muuti wàcc ci ñun ñëpp te gindiku gi mu gindiku ci Serigne Touba ak cër bi mu am ci Serigne Touba yàlla na cër boobu defar sunu lépp àdduna ak alaaxira ndax sëñ Moustapha lool rek li ci jublu ñu dellu ci taalibe gu jëkk ga dund taalibe gu jëkk ga bañ a dund taalibe parparloo ak taalibe settantal ak taalibe kii moo gën kii kii gënul kii ku ñu gis ku ñu gis rek te xam ne sëriñ bee def ci moom nan fexe ba jariñu ci moom kon loolu defe naa mooy muxaddima bi may jëkk andi mu mel ni nag eh, eh, sànq dama doon am lu ma doon xalaat balaa may jëm ci waxtaan wi mooy sëñ Moustapha xam nga dafa am loo xam ne lu yëngu rek ñu ne dogalu yàlla la waaye Fall am na loo xam ne du dogalu yàlla de jikkoo la sëñ Moustapha yàlla dogal nit ñi bëgg ko dëgg la déedéet mbëggeel gi li ci ëpp jikko la ndax dañ ne olof moo ne ku tukki kenn nammu la déglu leen baax li may wax ku tukki kenn nammu la jóge ci dëkk tukki ñépp naa yàlla bu mu dellusi hmm? ak ku wopp kenn seetiwu la mbaa yéen a ngi dégg li may wax ku wopp kenn seetiwu la nga xam ne ku tëdd këram mu ngi naan yàlla bu mu jóg rek ci damiiram ndax bu jógee sonal ñépp ak ku xewle kenn dikkut ak ku deele kenn jaalewu la mag ñi dañ ne yii moom du dogalu yàlla jikkoo la ko woote ñëpp ñëw jikko la ndax bu dee yàllay kese kese kese la ku ne mën nga ko wuti feneen kenn ku nekk koo xamul noo koy def nim la dafa tax sëñ Moustapha mii ñu baree bare bare bare bare nim leen defa tax xamuñu nuñ koy def moo tax bu wootee foofu ñu ñëw kon nañu teggat nañu taxale jikko ak dogalu yàlla léeg-léeg sa jikko yóbbale loo xam ne ñi la bëgg sëlëm naan la yàllaa ko dogal te yàlla dogalu ko sa jikko moo tax loolu dal la nañ koy ràññaatle nañu ràññaatle li jikko di teg nit sëñ Moustapha li ko sun borom may macha allah li ko jikkoom couleur moo ko ëpp te waxoon naa leen ci ay jotaay ne leen moom mii sunuy nopp waruma ko wax bi mu gënee jamono lu suñu sa Sakor wax waxoon naa leen ci benn waxtaan ne leen bari na koy wax ci sëñ Abdou Sakkoor te gisoo ko man nag am naa ayu bis ci benn kër ak moom ak sëñ Cheikh Fall Baye Góor saa bu xëyee day toog nii baayam moom nii sëñ Cheikh toog nii ñun ñu toog nii muy wax sëñ Cheikh di wax may dégg waaw kon su ma yarul it xam naa lu ma mën a wax ci sëñ Abdou Sakkoor lu wér bu ko defee ñun ñëpp ñu maase di jariñu ci li nga xam ne moom lañu kilifa yi jox bi mu ganee jamono sëñ Abdou Sakor daf ne kii lay mujj am ci doom kii lay mujj am ci doom sama mag ju baax ja nag sëñ Modou Moustapha Fall dama ko tuddee woon doom yàlla weddi ko léegi nag kii tudde naa ko sëñ Modou Moustapha Fall incha allah dana fi toog dana fi yàgg dana liggéey yàlla nan ko ànd ak moom na ñëpp ne amin liggéey boobu yàlla na ko fi yàlla saxal saxal nu fi kattanal ko kattanal ba kàddu baayam googee ñu bokk ko jëf ak moom ci barke Cheikh Ibra jamono nag dafa toll foo xam ne fokk ñuy dajaloo di fàttali nit ñi lan mooy ak taalibe te ak taalibe buñ koy waxtaanee Cheikh tax ndax bañ ku la gën lu dal iblis moo ko ko teg bañ nangu ku la gën it jamono jii lu dal nit moo ko ko teg ndax wax naa koo bokkal jàngaro koo bokkal jàngaro ku nekk koo bokkal jàngaro ku nekk bu jàngare dee faat nit yàlla nañ ci yàlla musal jàngaro jooju bu dee faate waaw waaw waaw di ay soppeeku. waaw. ñu ñii ànd ñoom nag suñuy soxna lan. Mm-hmm. dañ ko nag boo meloon boo melu woon nii. Mm-hmm. dëgg la waaye foo ne jikko muy ji jikko ji ma doon wax moom moo yëkkati vingt euros mhm. <laughs> ilaaha illallah ilaha la ilaha illallah la la ilaha illallah la fa la ilaha illallah la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 muhammadu rasulillah xarawlu leen xarawlu leen xarawlu leen ma way fi Cheikh Moustapha Abdou Sakor xarawlu leen xarawlu leen xeeraw lu leen xeeraw lu leen ma way fi Cheikh Moustapha Abdou Sakor xeeraw lu leen ma way fi Cheikh Moustapha Abdou Sakor Cheikh Moustapha billahi yaay góor Cheikh Moustapha Cheikh la bu yàlla def mu feese ay ngam ak leneen la yàlla may karim ma gis xolam Cheikh Moustapha ku sax ci maam bur yàlla xëy defar say mbir defal la ay teraanga nga doon boroomi mbir looloo waral Cheikh di Sakor fonk ko lool ngir daana jëf lu rëy ca moom te jàpp ko Cheikh Moustapha fu mu gis jullit bu nara aw ci yoonu bon mu wan ko yoon wu leer ba kooka teggi bon naatal na xol yi daggi na xel yi ci ak dëggoom lamp la buy leeral lëndam amul morom jaarama Cheikh Moustapha amuñu sa fay bur yàlla rek am sa fay fal yàlla yàlla na la fay jërëjëf ah, am ko wax sànq fii ne turandoom sëñ Moustapha sëñ Mouhamadou Moustapha Fall yow yaa ko wax turandoom sëñ Modou Moustapha Fall daa waxoon ci diggante taalibeeg sëriñ Baye Matar Ndiaye nee na ma sëñ Moustapha Fall daa waxoon ne ànd man bu ko kenn tiitaroo sëñ Moustapha Fall nee na ànd ak man bu ko kenn tiitaroo dama bëgg ngeen déglu li may wax nee na ànd man yombul ndimbalu yàlla la daal di wax ne man Moustapha kiñ tuddee sëñ Moustapha mi man Moustapha képp koo xam ne yaakaar na ma di ma liggéeyal sëñ Moustapha Fall nee na bu ñu daggee sa yaram sama deret mooy génn gaa yi loolu mooy sëriñ sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg boo ko liggéeyalee dëgg dëgg te mu mat li mu mat deret ji daw ci yaramam mooy daw sa yaram yow taalibe bi waxuma ay leer de deret ji ji daw ci yaramam mooy daw sa yaram kon Cheikh Ibra xam alxuraan jekku alxuraan xam nu ñuy defaree nit xam nu ñuy dimbalee nit moo tax la gën a mën a yàqal nit la Cheikh Ibra tënk def ko benn say tudde ko ak taalibe tudde ko ak murit damay waxtaan ak sëriñ Moustapha Xasida fan yii yàlla na ko fi yàlla yàggal mu ne ma dafa am naar bu ñëw ci Cheikh ci sëriñ Touba naar bi ci Cheikh Ibra la bëgg a jëm waaye ñemewul sëriñ bi te loolu bari na ci dongo yi léegi de ñoo xam ne garmbaas yu ñuy wax ak li ñuy def yëpp Cheikh re lañ ci jiw ak Baye Fall te ñoom maa ngi leen di xamal ne Baye Fall yi ñoom matuñu leen sax mbindaan ci wàllu yàlla léeg ngay xeeb nit fekk moom bëggut sax ku koy tudd di la tudd te yaa ngi defe ne yaa ko kawe te loolu moo dal ñu bari ci Baye Fall Baay Faal yi bari na ko leen di xeeb te ñoom bëgguñu sax doon yow loolu laa leen bëgg a wax ne leen damay waxtaan ak sëñ Moustapha Xasida mu ne ma daa am naar bu ñëw ci sëriñ bi ne ko xanaa Cheikh Ibra Fati de sa taalube la sëriñ bi ne ko kooku de sa taalube mu ne ko xanaa Cheikh Anta de sa taalube la mu ne kooku de sa taalube mu ne ko xanaa sëriñ Masamba sa taalube la mu ne ko kooku de sab taalibe naar bi ne tekk ba mu yàgg ne ko Ibra Faal nag sëñ Moustapha Xasida ne ma sëriñ bi joxoñ ko baaram bi ne ko mën nga ndox mu ne déedéet sëñ bi ne ko yemal foofu gannaaw mënoo ndox ah mën ndox yombul gaa yi mën ndox yombul xam ngeen lu tax ndox ba mu dalee rey ay mool léegi ñaata at la ci ñoo xam ne fii lañuy ñuy juddoo ñu sang leen ci dex gi ba ñuy am ñaari juróom-benni fan ñu dëkk ci ba am ñeen fukki guddi mu xëy rey leen man ndox yombul de ay wolof laa leen wax te sëriñ bi da ko ne ndax mën nga ndox rek mu ne déedéet sëñ bi ne ko kon yamal foofu gaañi ku toll ni Cheikh Mountakha bu waxee ne Baye Fall ba gën a xeebu ci Baye Fall yi moo ma gënal sama jëmm ji ku amati jom di nga bàyyi Baye Fall yi nañ waxante dëgg de nit ñi ñu ñàkk jom lañu ku am jom ku tol noonu wax loolu ci Cheikh Ibra nga jaaraat ci suuf di am leneen lay amoo jom tey tekki woo dara te sëñ Cheikh Khadim moom Serif Assane nee na ma ku ciy génne ku ciy jéem a génne Cheikh Ibra ku ne yow moom yaa ci bokkul xamoon ngeen ne màndarga mi ñuy xamee ko bokkul ci sëriñ bi doonoo dara ci moom mooy kuy génn jéem a génn Cheikh Ibra ci yoon ku ko ci jéem a génn yow moomu yaa ci bokkul ndax teraanga ji yàlla defal Serigne Touba ñëpp ngi ciy tedd te koo gis boy wax defe na leneen a ko teral te loolu jikko Iblis la Iblis moo waxoon a haza lazi karamta alayya yàlla kii moo tax nga ngay jël kii ndox ak ban bii di aadama moom ngay jël di ko teg sama kaw daal di wax nag li tax ñàkkuk taalibe bari keroog la ko Iblis wax te booba dara xewagul Iblis wax ñàkkuk taalibe déglu leen li ma leen di wax alxuraan mooy murit xam ngeen lan mooy murit dëgg-dëgg mooy inna ibaad yi laysa laka alayhim sultaan murit dëgg mooy ki të seytaane baam ngërëmal yàlla waaye fekk àggagoo ci nag xamagoo foo jëm de sëñ Moustapha Xasida damay waxtaan ak moom fan yee ma ne ko damaa gis maa ngi ñëw ci loolu sëriñ Tuubaa bind bu nii malaa'ikul baaxil karim li wajhihi maa falaaxin laa yarim dégg nga yuhibbu nii malaa'ikul baaxil karim sëñ Tuubaa ne malaayka yi dañ maa bëgg li wajhihi ngir jëmmi yàlla maa falaaxin laa yarim dañ ko booleeg mbégte mu dul deñ ma ne ko man Mbàkke damaa xamul bëggug nit xam naa ko waaye bëggug malaayka laa xamul nan la malaayka di bëgge mu ma Sëriñ Tuubaa moo wax ne malaayka yi seenug bëgg ci man ak bëggug nit ñi li leen wuutale mooy nit ñi dañ maa bëgg te xamuñu ma malaayka yi bëgg ma te xam ma xam nga lu tax nit ñi xamuñu sëriñ bi bés bu set nga xam loo xamul woon ci moom ah Pape Pape Malick koo xam ne bés bu nga xam loo xamul woon ci moom te di nga xamaat loo xamul woon ci moom di nga fi bàyyi ko nit ñi xam loo xamul woon kooku kooku nit du ko xam waaye nee na malayka yi ñoom dañ maa bëgg te xam ma nit ñi nag bëgg ma te xamuñu ma ahaza lazi karamta ya iblis daa wax sun borom ne ko kii moo kii nga bëgg jël teral ko sama kaw daal di wax nag la in axarta ni ilaa yowmil qiyaamati la axtani kan la na zuriyatahu ilaa xalila xalil boobu nag lañuy daw di wuti ñun dégg nga sëñ Saali mu ne suñ borom ginnaaw iblis ginnaaw aadama mii moo tax nga génn ma ci sa yërmande soo ma fi bàyyee ba bis pinc kon moom am na doole de moom xam na ne ba yowmal xiyaam du dee te jaamu yàlla képp la li may faral di wax rek benn daanukat nee na ma man wax yi nga wax yépp ba ma ci gën a neex mooy li nga ne iblis iblis ku xëy muslu ko gaa ñi ku xëy muslu iblis ndax mooy yàlla ab jaam dong la waaye cey ku yàlla jóg sa digganteeg moom dootoo ko dolli te du yàlla te boo wëlbatikoo ne maa ngi làqu ci ginnaaw Serigne Touba ab naa fekk taxaw fee naan la xaraam cirk nangu nañu ku muslu iblis ndax ragal lorom waaye nanguwuñu ko barkeelu ci sëñ Tuubaa ndax ba bare jariñoo ko ma bëgg leen laaj lan moo nekk ci ñooñu lan moo nekk ci ñooñu bañ ne sëriñ Tuubaa du jariñ kenn bëgg laa yóbbu ci tawhiid maa ngi leen di wax neen gis nga bari na saay-saay yoo xam ne ci taw la lañuy naxe nit ñi dama ne tey foog ma wax ko fii ndax koo ci gis boo waxee baaxu sëriñ bi mu naan la dellu leen ci yàlla naan naan dalay jéem a booleeg yàlla dellu leen ci yàlla yàlla lii ngeen di wax yàlla rek a ko yooyoo nangam nangam di wax di wax di wax di wax di wax te fekke na kat moom ci boppam ci boppam la la bëgg a jëmee bari na ku taxaw fii ci télévision bi naan jaamu ji leen yàlla di ngeen wéet ba defe ni yàlla yéen rek la bind te ndaw su ma wéetal dootoo ko dolli nañ waxante dëgg de gaay ku wéetal dootoo ko dolli yow te mu ngi naa gaay wéetal leen yàlla te fu mu wéetee def loo xamante ni li kenn mësu koo gis hmm? moo tax Iblis daal di wax sun borom ne ko eh, gis nga jaam ñii danaa leen jaxase ñoom ñépp ay sëtam surtout aadama danaa leen jaxase ba ñun néew ñun néew ci mucc léegi nag kuréel bu néew boobu nag moom la sëñ di lijjanti si ilaa xalila dama bëgg ngeen déglu baax li may wax waxu xam-xam laay wax illaa xalilan jooju la axtani kanna zuriyatahu ilaa xalila dinaa jaxase ay sitam ba mu des ñu néew sëñ Tuubaa nag ñëw ci ngir sowe ñu néew ñooñu te ñu néew ñooñu mooy ñiy dox ci taalibe te yaakaar sëriñ bi illaa xalila waaye bi mu nee ñu néew ñooñu sun borom da ko ne xaala fazhab fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfuura aca doxal iblis génnal képp ku la topp moo ko yow jahannama ngeen jëm waaye nag li ma bëgg a wax nag ci laa bëgg jëm nii nag loolu moo nu yàqal ak taalibe te Cheikh Ibra ñëw bëgg noo dimbaliwaat ndax suñ borom moo digal moo ne Iblis déglu leen lii may wax moom moo ko wax de léegi li ma lay fayee mooy lii wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika eh gars yi nañ def ndànk maa ngi ñëw nag ki Cheikh Ibra ak yooyu yëpp waaye dama bëgg ñu recentré waat suñu bopp xoolaat lan mooy ak taalibe xool ni nu ko alxuraan waxe woon wastafzis man istataata yow iblis koo mën a réeral réeral ko jaxase ko bi sawte ko ci sa baat nañ taxaw foofu ñu bari ci ñun ñi li yàq seenug taalibe mooy seen làmmiñ li leen di yàqal mooy lu ñu dégg ci làmmiñ mu jóge ci làmmiñ ba ci réseaux sociaux yi li nu yàqal lu bari ci li ñuy jóge ndax làmmiñ li muy yàqal nit dafa bari te ab taalibe du boyal làmmiñam lu ko neex wax te léegi bu dara jógee doo am kilifa da ngay daal di jóg wax lu la neex ci saasi bu sëriñ bi diglee nga jóg wax lu la neex ci ndigal la man dégg naa ko Cheikh Sidil Muxtaar wax ne ah dellu leen ca tool ya mu jël rajo Sénégal moo tax ñun murid nañ defaat ndànk de te royaat Cheikh Ibra kooku jël rajo Sénégal ak télé Sénégal ne man de Cheikh Sidi Moustar nee na nañ dellu ci tool yi waaye man Dakar samay tool ba noppi nay gi nekk léegi ci doomu aadama yi dafa xaw a yéeme allazina yafxaluuna wa yaamuruuna naasa bil buxli léegi dangay gis murit buy digle nay déglu leen baax li may wax murit boo xam ne bu ndigal jógee moom mooy wax li tax nit ñi dootuñu sawar ci suuf la koy wax de xam nga nuñ koy waxe benn waay Cheikh Sidil Muxtaar daf ne day def juróom-ñaari sooroor benn murit jékki-jékki daal ne waaye sëñ bi nag moom it nag te moo bàyyi juróom yi rek waaye juróom-ñaari sooroor moom itam loolu dafa dafa dafa seer nag moom itamit ñu bari naan ko waaw wax nga dëgg de jumaa ji sax buñ ci ñu nay ñi naan ko jumaa ji sax buñ ci yokkee juróom-ñaar du rafet xam nga lu ñu bañ ku leen sas waaw ma bëgg ñu yeewu ci sunu bopp fi mu nekk nii li ñu yàqal dafa bari te dama bëgg ñëpp dégg ko te Cheikh Ibra bi mu ñëwee di ñu jàngal ak taalibe lii la doon bañ mu dal ma ba noppi képp koo xamante ni kii yaa ngi wax di woy di fecc daanaka la Cheikh Ibra waxoon ci gisul murid yaay doon xaritu ñëpp waaye nag yàlla dafa xariñ de gis nga woykat yi ak fecckat yi bés bu set aaya alxuraan la leen yàlla di wax loo xamoon ngeen lool xam nga lu muy bañ ku ne suñ borom dégguma woon aaya bi moo tax da leen di fekk fa ñuy fecce da leen di fekk fa ke fecce ne rappeur yi wax leen ak nit ñi koy yàlla rappeur bi jóg muuru takk bopp bi di dox di ngarale tànk yi naan du moom kenn du kenn du moom moom rekk la ma ne waa yàlla ngi leen di xaar du moom moom kenn kenn du moom moom rekk la ah ab rappeur ñëw taxaw ne la niiw bi laa tudd nga fàtte dee te tàccu nga ko jox ko xala alal mu lekk dem te mu ne la néew bi laa tudd ah am na ak dégginaa ci ku tudde boppam nit dof ma ne gis nga kooku nag fi mu nekk nii nag moo yee nit ñi nag koo taxaw ci kanamam doo xam nit la walla dof la ah hmm? gis nga actualité li lay wër nii dee ci xool di ci jàng sectaal bi sëñ Moustapha mii li tax mu woonu bëgg nu jariñu rekk a tax loolu képp a tax de waaye leneen taxul moo tax nuy waxe nii ci jotaayam ñu bañ defe ne auto glorification ak glorifier kenn moonu tax a jóg maanaam ñëw di taggante di gërëmante di waxante ba mu ba mu tas ñun ñëpp ñu dem te doo fi jëlee dara dégg nga am na ci jamono yee ca woykat yooyu ku tëdde woon boppam benn euh, tur man leen léegi ñu tëj ko de ndax tur wi moom ku ko tudd waruñu laa bàyyi ngay dox waaye ci kaso bi la mujj de kon biisal ismu fu suux ab taalibe du yàq ay tur sax gisuloo fi mu nekk ni boo demee Touba ñi tëdd sëñ Souhaïbou bu nu ñu leen di woowee sooy xam nga yii yëpp nag nit ñaa ngi koy xeeb waaye maa ngeen di wax loo xam ne lii wallaahi nañ ko moytandiku ñi tudd sëñ Abdou Lahad nuñ leen di wooye waaye laata dafa baax laata yàlla la joo xam ne mu ngi ci alxuraan laat baaxul Abdoulahil Ahad wala nga ne Abdou Lahad ñi tudd sëñ Moustapha nuñ leen di wooye Tafa walla Taf wala Muus ah da xool da xool façon da ngay xool Serigne tubaa tur yooyu ni ko fonke ñu yàq ku lépp te ñun murit yi ñoo koy wax danoo war a danoo war di waxtaanee lii de kilifa yi boo déggee ñuy woo nit mu dan nuñ leen di wooyee ñi tudd Mahmoudan nuñ leen di wooyee sëñ dan luy dan te ñun ñëpp maase nañ ko wax mu ne sëñ danay sama sëriñ dan du tur mahmudan tur yonent bi iblis loolu moo koy def ngir yàq tur yi maa ngi ñëw nag digal nañu nay soppiloo ñu sunuy tur ba noppi nag yeb loonu sunuy kilifa ah gars yi li may wax nag xam naa ne ba ba demee dana am waaju rocc ku naan moom ñu ngi ko waxtaan loo mënuy xas waaw sëñ bi sëñ bi bi mu nuy woo bëgg noo jariña tax sëñ Cheikh Fall Baye góor nee na koo gis ak koo gis aw yoon lay laaj te koo ci teg mu mer bu ko defee ñu bàyyi xel réseaux sociaux yi internet nañ ko wattandiku ndax am na ci lu baax waaye bari na lu bon nañ ko wattandiku bu baax a baax a baax a baax ndax bés bu set nga gis ko wax ci internet kàddu goo xam ne wallaahi bu feeñoon euh, euh, wax turam ne man mii maa wax lii du yendu moom moom bakkanam keroog lay yem léeg nga dégg ñu jël aw saaga teg ko ci koo xamante ni kii yow mi ko déglu sax danga naan man maa tooñ sama bopp man mi ko déglu kon kàddu yi dafa bari réseaux sociaux yi ci la bokk moo tax mu ne ko bi sawtika wa xaylika ak waruwaay wa rijlaka ak sa tànk dama koy tënk rek wa sharikum fi lamwaali wal awlaadi yow Iblis sun borom ne ko nanga jaxasook jaxasoog nit ñi ci seeni alal lay tax alal di jariñ nit yëpp ci digganteem ak boromam se boromam na nga fexe ba tere leen nanga nga fexe ba tere leen ko buñ génneeti asaka buñ sawarati ci àddiya te jullit de ñaar yooyu bu ci sawarul xaw ma fu mu jëm mu ne ko wa sharikum fil amwaali na nga jaxasoog ñoom di leen weddiloo yàlla ci seen alal kenn ku ci nekk alal ji mu am bu mu xam sax ndax leew na wala leewut bu mu ko mën a sax wax ba noppi nag wa idhum a wala walaadu ak seen doom yi jullit yépp duggal ci seenu biir njaboot nangu seeni doom ba yàlla du ci am benn cër te Cheikh Ibra nee na ci Jazbul murit doo am doom ci yàlla mukk lu dul nga joxe doom ngir yàlla te nit ñi joxeetuñ doom ngir yàlla gisoo tarbiya ak yooyu sax ñu bari dañ ko xeewil jàpp ne sax doonatul lu ñu war a def te Cheikh re nee na lépp loo bëgg lépp loo bëgg na nga fekk la la ci yàlla jox nga delloowaat ko ko ca ngay amee loolu dëgg-dëgg nee na boo joxewul doom ngir yàlla doo am doom fa yàlla mukk doom ju am ngërëmal yàlla doo ko am nee na boo joxewul alal ngir yàlla doo am alal fa yàlla mukk kon mu ne ko tamit wa idhum wa ma yaiduhum cheytaan seytaan ghurur na nga leen di dig na te li nga leen di dig yëpp na doon ay war kenn ku ci nekk nay def ay projet di séentu loo xam ne dara du ci am loolu dañ ko war a bàyyi xel dama ko tënk noonu mbëmbëstal ko rek ñu jàll boo ko defee nag sëñ Abdou Sakkoor mii ñuy waxtaane wax naa leen ne leen nit la ku ñeme dëgg te nit ñi li ñu gën a bañ léegi mooy dëgg kon sëñ Abdou Sakkoor buñ koy defal bés na nit ñi delluwaat ci bëgg dëgg bëggal ko sa bëggal ko koo gis musu kenn musul taxaw ci kanamam wax lu dul dëgg te newu waxoo dégg ay wor la gënoon a bañ sàcc nag waxeesu ko rambaaj waxee su ko sa yëb sakkoor ba ñi ko xam ñëpp xam nañ ne boo teewee ci kanamam di wax waxi rambaaj lam la cay tegal ci ngay xëyee dootoo ko wax ca ngay jóge dootoo ko wax jikko yooyu lañu ñu war a roy ba noppi xam ak mbokk maanaam sëñ Abdou Sakkoor xamoon na Sénégal xam boo xam ne maanaam ku mu gis nga bu la waxee noo sant boo ko waxee rek foo dëkk nga wax ko ko rek dana la wax sa bokk yépp te nit ku ku xam boppam la ku gëm Cheikh Ibra la ku gëm sëriñ Touba la ku bañ lu bon la ku dëggu la ku yaatu la ku tabe la woon ku bari jom la woon kooku jeexoon nag yàlla la man am na ci doomi Sërif Asan yi ku ma wax ne ma man mii ma ne ko waaw mu ne ma wax dëgg yàlla sama baay Abdou Sakkoor de yóbbu na ma ci piyu yàlla yoo xamante ni góoru musuma faa yóbbu ah jàpp loxo nit nag yóbbu ko ba ci boromam moo ci gaawan kon yàlla nañ ko am ci barkib sëñ Moustapha mii nga xam ne moom la ñu fekk si ci bés bi ñun ñépp nañ maase roy jikko yooyu ba noppi fonk ay bokkam ba noppi fonk addiya am na benn bés mu woote am ko ko ne wax dëgg yàlla faal man de damaa yéene mais <laughs> Abdou Sakor ne ko bu ma fi kenn tuddal yéene yéene kese moom xam nga léegi am na murit yoo xam ne buñ sasee bu rée dañ naan déet loo man defa rek loo mënul nga yéene waa ji ñëw ne sëñ Abdou Sakor <laughs> damaa yéene Abdou Sakor ne ko bu ma fi kenn wax waxi yéene yoom kenn ëpp ko yéene waaye du ngénte mukk <laughs> wuyu leen ma mooy murit boo xam ne bii luñ la wax ah <laughs> sëñ Sakkoor ne ko bu ma kenn tuddal yéene da ngay def kay ba sa doole jeex nga yéene waaye ñu santaane nga yéene rek te bari na ci ñun ñii nag ah gars yi yéene leen rek waaw yó <laughs> yóbbaale ma <laughs> waaw mu ngoog fasaale ak yóbbaale waaw kon bari na yu mel noonu yum daan wax am na ku mës am na ku ñu mës a woote waa kat Cheikh Ibra ñu mën a jàngale lañu dama bëgg gaay li ma leen di faral di wax ci band yi ngeen di ko diglu Cheikh Ibra muy muccuk jamono ji billaahi wallaahi taalaahi ku bëgg a mucc melaw Cheikh Ibra nga yor ndax sëñ Mor Mbaye Cissé siyaare naa ko mu ne ma bunt eh, eh, buum yi jëm ci yàlla yëpp dagg nañu benn dematul du ma fenal sëñ Mor benn dematu ci benn buum laa gis muy dem muy ak njébbal waaye buum yëpp yàlla delloo na ko buum yépp yàlla delloo na ko neena na buumu njébba rek laa gis muy dem kon jébbulu te tegu ci yoon te xam luy njébbal te di ko doxe dafa am solo am na koo xam ne kii dañu woote woon dañu woote woon demul gis sëriñam ab baay Fall la di sëñ Cheikh Khady eh, bëgg ko àndil ak ceytaane xam nga xam nga ak taalibe ak ceytaane bokkuñu waaw kay jërëjëf ak taalibe soo ci dugalee ak ceytaane rek xamal ne doonatoo taalibe ndax ñaar yi moo mënta ànd doon seytaane su mag doon taalibe bu mat mënta nekk dégg ngeen li ma wax te nit ñi léegi xam nga lu ñu bëgg doon seytaane su mat sëkk doon taalibe bu mat sëkk ñu leen di woowee murit saadix te lu seytaane di santaane ñoo ko dàq woote woote woote carrière waa ji demul gis sëñ Cheikh Khady rek di ko jëkkantu <coughs> sëñ mi ne ko ah yow lu tax ñëwoo ci ndigal li rek mu bënn bët yi di jooy sëñ Cheikh di ko déglu rek muy jooy rek di yëkkat rek xam nga gars yi buñ la bëggee jommal rek dañuy jooy ñu naan ndeysaan sëñ mhm. Cheikh Khady Gueye ne ko man xaw ma yaa war a jooy xaw ma maa war a jooy waaye dana xam ne kii mooy kilifaam dégg ngeen ko wax kilifa day mat kilifa mu ne ko xaw ma yaa war a jooy xaw ma war a jooy man mi nga xam ne bu bis pincee man lañ lay lañ lay laaj te lu ma santaane doo ko def lu ma lay layee ëllëg bàyyi ma ma jooy ba noppi man mi nga xam ne yàlla damay taxawal di ma la laaj du ma xam lu may tontu balaa ngay jooy danga may bàyyi ma jooy ne ko maa war a jooy de waaye waroo jooy dégg dégg nga kooku xam-xam bi mu yor ak ni mu xóote koo xam ne yow lañ koy laaj ëllëg loo ko sant du ko def ba noppi bu la gisee tàmbale bënn bët yi di jooy yooyu dañ ko war a wax gis nga fi mu nekk nii baaxu sëriñ bi ñëpp a ko xam maanaam doole sëriñ bi ñëpp ko xam waaye la cay maye dara fokk nu xuus ci Seex Ibra fokk nu xuus ci Seex Ibra ngir xam ne moom moonu mën a dimbali tey ak ëllëg daal wallaahi dafa dafa dafa am benn xale dafa dégg ma naan Seex Ibra nee na fu waay yem yaa fa yemale sa bopp. mu dem jënd téere bu cher ci téere tubaab yi di ko jàng ba gis tubaab ba ne kenn ku ne ci ñun xelam fi mu jàpp ne xelam fa war a yem xelam du ko weesu mukk mu dellu cinéma ah man de la nga doon wax ci seex Cheikh Ibra tubaab bi wax na ko mooy fu waay yem yaa fa yemale sa bopp ma ne ko tooñ nga ma nag ndax waxi Cheikh Ibra bu ma ko dëggalelee waxi tubaab ma wax la ci Cheikh Ibra nga denc ko ba gis tubaab mu wax nga soog a dëgg la mu ne ma sëñ bi da ngay neex a waxal yéen ma ne ko yow mi yaa neexul a waxal ndax waxi Cheikh Ibra ëpp na waxi tubaab ëpp na waxi naar du seen morom sax te bu ñu bëggee defaru tey ak ëllëg moom la ñuy déglu message la nag bu may jàllale nit ñi defe ne dama ko wax ngir xër déedéet waa kër Cheikh Ibra lépp luy jëriñ nit tey ak ëllëg wane nañ ci loo xam ne kenn fekku leen ci wane nañ ci loo xam ne kenn fekku leen ci bu ko defee nu góor góorgóorlu ñun ñëpp ci ak góor góorgóorlu ñun ñëpp ci dooni murit yu dëggal wattandiku lépp lu ñu xeeñ ak taalibe bari na koy wax te fekk na sa digganteeg sëriñ bi dara leeragu ci yàlla nañ ci yàlla mu sëñ Moustapha Xasida dama ko laaj ne ko waaw sëñ bi sëñ tubaa mas naa wan nit lu mu àttanul mu ne ma waaw mu ne ma waaw wan na nit lu mu àttanul ba tàyyi de ma ne ko loo waral mu wan nit lu mu àttanul loola di ko lor mu ne ma dafa fekk kooku jàpp ci moom lu mu warta jàpp nañu seet li ñuy jàpp ci sëñ bi de Cheikh Ibra Fall li sëñ bi waxoon sëñ Touba dane borom menn xel mooy lan ñu ne ko ko am benn bët mu ne déedéet loolu benn bët rek la xaw ma lu ko yóbbu ci xel nit dana yor benn bët ëpp xel ci réew mu mu dëkk olof mu dof mi naa borom menn xel Cheikh Ibrahima ne borom menn xel kenn laa ci xam sëñ tubaa nee na borom menn xel kenn laa ci xam ci àdduna muy Ibra Faal daan ne moom de moom laa gis déglu leen li may wax moom de moom laa gis xelam du jàpp lu dul man moo tax sànq ma wax ne Cheikh Ibra gëmug malayka lañ ko jox yorul gëmug nit moo tax nit kuñ koy tëkkaleen ñu ngi lay nax gëmug malayka la yor yorul gëmug nit kon nañ ngeen góorlu bu baax a baax a baax ci roy ko am na koo xam ne ca mbokkum sëriñ bi la ca njëlbeen gi dafa am benn bés julli jot gaa yi ne teenoo julli ba tey sëñ Moustapha ma ko nettali de tey ñoo julli mu ne ah sëñ bi de sëñ bi de daan ci biir di nelaw rek xaar leen ma yee ko man mbokkam la daal di dugg nag yem ci jëmmi sëriñ bi nekk téeméeri nit loxo bu nekk ay xalima yu bari teg eh, nekk ci muy bindandoo waaye gis-gis moom attanu ko sëriñ bi wëlbatiku jëmm yëpp dellu ci biir jëmmam sëriñ bi topp ko ne ko toppal sama baaraam bi mu génn ba ca biti sëriñ bi ne ko dee leen yëglu de daldi delloo bunt bi sëñ Moustapha nee na ma kooku ca suba sa la waaye nag man li ma ci ñor du kiimaan googu mooy li mu ne sëriñ bi ko jàpp ci moom loo warte jàpp dana la teg loo àttanul hmm, xaw ma nag ndax yéen ngi dégg li may wax de nga sëñ nit day am teggin ci di ngay jàppe mbiram waaye léeg ab taalu bi xalaat loo xam ne gis nga bu ñu génne woon xalaat bi ci biti murit dañ ko dóor ba mu faatu te am murit la moo tax murit li muy jëkk a def day yar xelam ni Cheikh Ibra nanu yar sunu xel yi xel nag boo koy yar dangay ngay moom subaak ngoon ndax dafa gaaw te du toog benn barab nit day yar xelam xanaa xamoo ne awliyaa yi nitu yàlla yi dëgg dëgg koo ci toog ci kanamam loo xalaat mu xam ko waaw léegi boo toogee nag di xalaat ci moom loo warta xalaat te mi ngi koy xam foo jëm te gis nga nit ñi léegi seen xel yi wee eh, fa muy jëm yépp kenn mënu ko wax kenn mënu ko wa kenn mënu ko wax nit ñi li xalaat gis nga bés buñ ko génnewoon fii kenn dootul nuyu kenn hmm? lu tax sëñ Fallou bañoon xool bu bari daa xamoon nañ xoolkat yi yëpp la ñuy xool la ñuy gis buñ ko waxoon àdduna tas kon nag ak taalibe dama leen wax ne leen Cheikh Ibra ci alxuraan la ko jële wala tamshi fil ardi marahan du ak taalibe ah Nabil wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tuxrixal arda wala tabluxal jibaala tuula loolu du ak taalibe bul dox ci kaw suuf di bonde ku la kiis defe ne yaa gën yàlla ne boole naa la ak suuf léegi bëtt ko bu fekkee mën ngaa tëb ci kaw suuf di wade dal ba suuf xar def ko ma xool xam nga loolu mooy ak taalibe ba mu yàgg ngay tëpp cëpp jëm kaw mu ne la montagne yaa ngi nii mënoo yem ak ñoom de moo tax alxuraan lu mu jàngale rek ak taalibe la kon nag nañ leen góor góorlu ci xam ne ak taalibe muy musal nit àdduna ak alaaxira ak taalibe mooy musal nit àdduna ak alaaxira boo ko defee lii sëñ Mbay sëñ bay Fall doon wax léegi eh, muy wolofalu sëñ Mbay Jaxate bi waxoon ci Cheikh Ibra te mu ne ma daf maa neex ba dama koo bindaat sëñ mbay mi toog loolu murit yépp a ko war a dégg te daanaa ko wax man ne xaw ma lu tax sëñ sama sëriñ bii mataar mokkalul boobu ba léegi xam naa da koo gisul ba yoneen ba nekkee ca bokkam ya woon dafa neex déglu li sëñ bay jaxate di wax mooy li may faral di wax mm-hmm. xanaa xanaa xamuloo ne yow sëriñ Ibra Fall moom sëriñ Ibra Fall la wax ak alxuraan ñoo ñem yem ci jaan ñi gisal ma woon la ko moo tax mag ñi daan wax Cheikh Ibra mooy alxuraan yi murit nit ñi naan alxuraan beneen amul dégguñu daaj Cheikh Ibra mooy alxuraan yi murit maanaam murit nit jullit war a jànge alxuraan noonu la am murit war a jàngate doxalinu Cheikh Ibra mu daal di wax ne xanaa yëgoo ne an ak sëriñ Ibra Fall ñoo yem ci jaam ñi gisal ma wan la ko ba yonneen ba nekkee ca bokkam ya woon moroom lañ ko def boobu sujjóot bi xewagul bu toogee ca kaw ñu toog ca kaw bu waxee ñu werantee ko weddee ko xul ba yàlla wàcce ci ñoom saaro xujuraat la ñuy soog a xam ne li ñuy def warul la woon loola mooy tey jii ci Cheikh Bamba mi ba Cheikh Ibra Fall ñëwagul mbiram yaatuwut kooku tënk na doxinu Cheikh Ibra yépp teg ko fi barab te sëñ Dame Abdourahmane Lo ku ne xam na li mu doon ci Serigne Touba sëñ nee na Cheikh Ibra ku ko yéem la ku ko yéem la lool ndax nee na yaatu dënnu Cheikh Ibra la xamul fan la ko jëlee ndax nee na Cheikh Ibra boo ñëwee ci moom da fekk ay nit ñu sell ñu sell nag xam nga yàgg naa leen ko wax ci ay bànd Cheikh Ibra am na nit ñoo xam ne degré degré sell bi ñu yor maanaam niiw na ko ko am te ay taalibeem lañu mu ne boo ñëwee ci Cheikh Ibra da ngay fekk ku selle noonu gis ku taqa taqa taq taq ba fi taq yam nee na li ko jaaxal du leen ber demal ci mu ne nu baaxal xadim ne Cheikh Ibra day bokk ak ku sell ki ak ku tilim ki di leen yar di leen yar ba ñu bokk benn bëgg ku tilim ki fekk si ko sell ki mu yóbbu leen seen borom moo tax Cheikh Ibra am ay xeetu nit ñoo xam ne ñu mel ni ñoom kenn daawu ko gis nga xam ne mën nañoo defar nit maa ngi nettali Cheikh Serif Assane bàyyam bu tedd boobu li ma waxoon Baye Daaw Xari Géey mu sëñ Assane moom lañu tuddee sëñ asan mii Baye Daaw Xari Géey ba mu ñëw di jëblu sëñ asan moo tax moo tax moo tax nekk fii di firil nit ñi ay ay aaya ki yooyu baax na waaye Cheikh Ibra nee na waaraate baax na waaye def ci nit dara moo yombul ñi ko mën bariwul de waar nit ñi ñu dellu nekk seenu caay-caay moo gën a yomb waaye nee na def ci nit dara mu jóge ci lu bon tàbbi ci lu baax Cheikh Ibrahima nee loolu la yàlla soxla ci jaam yi te moom loolu lanu nu bëggal nu nuy waar rek takat ki lay waaru waaruwul de moom ci boppam waaruwul waaw ki waar moom ci boppam waaruwul ba noppi ne da waar lii xew lépp looloo ko andi kon loolu mooy li ñu war a bàyyi xel ñun ñëpp fexe ba tënk sunu bopp ci li waaj a waxoon rek bañ ko ne luy murit dane da ngay defar sa bopp ma bëgg na ngeen déglu li may wax ko ne luy murit mu ne dangay defar sa bopp ba sa xel mi am kàttan ba jaaxal la sa xol bi am kàttan ba jaaxal la sa ruu gi am kàttan ba jaaxal la sa jëmm am kàttan ba jaaxal la ba ku song jëm suuf eh, est-ce que dégg ngeen li ma wax xam nga ni ñuy faral di waxtaane cig murit ñooñu xamuñu lu ak murit xam nga am na murit yoo xamante ni mi seen xel demul fenn te murit a fi daan ëpp xel ci àdduna moo tax sëñ Madun Càmb bu Mbàkke nee na gisagul ku mel ni Cheikh Ibra ci xel ba mu xëy ba léegi sëñ mënu Moustapha amul kenn ku ko dab ci xel ci àdduna xel nii kenn dabu ko ci ndax nee na bu fekkente ne danga am doole kàttanu kàttanu yaram amoo kàttanu xol am na loo xam ne bu ñëwee daan la ndax soxla ko dul attan waaw am na ñoo xam ne tey jii boo leen tuumaaloon fii képp mën nañ ci génn àdduna dëgg la wala am na ñoo xam ne man gis naa koo xam ne ci Touba dañ ko jiiñ sàcc képp mu ne man ngeen di jiiñ sàcc ñu ne ko waaw te Mbàkke la santoon ñu ne ko waaw mu ne tey ngeen may gëj a gis de ndeke man nit dana ma jiiñ sàcc ñu naan lu muy wax ni mu dem dugg ci néegam tëj ko faatu xam ko ko bokk na ci ko baax waaye amul doole moo tax Cheikh Ibra waajal nu ne tuuma ju du dëgg teel koo def ci sunuy xel moo tax ma ne la sam xel da nga koy namm ba mu am kattan borom xel wu ñëw fi la lay fekk murit yaa ngoog de ndax murit boo waxal su tontoo ci xel fa ngay jóge dootoo wax ak moom waaw waaw waaw sa xel gars yi nañ déglu li may wax de murit day namm am xelam rafetal ko xel mi am doole ba nga xam ne benn xel du ko du ko faab du ko faab bi ku ñëw rek fekk sa xele ko ëpp doole nga namm sa xol ba lépp loo xam ne agsi na nga attan ko waaw ba noppi fexe ba am dignité li ñuy wax dignité murit day diiñ ba kenn du ko toroxal te pourtant de foo ko fekk mu ngi wàcce boppam waaye murit day am dignité ba kenn du ko mën a toroxal ba noppi nag woyof woyof ba kenn du ko yeb xanaa xamoo woyofug murit woyofug murit xam nga lu ko tax a jóg kenn bañ laa mën a toroxal sëñ Cheikh Fall Baye góor nee na ma njaga xam nga lu tax Cheikh Ibra andi ak woyof ma ne ko déedéet mu ma xanaa xamuloo ne tey jii bu la nit bëggoon a toroxal nga woyof du la mën a toroxal day far torox daan ne ma tey jii njaga boo fekkoon ko toog nii ci suuf nga bëgg ko toroxal noo koy toroxale waaye ku toog ci kaw nag eh sëñ bi wàccal waaye baa la nga lool taxaw ñu ko sëñ bee ko tax yow foo jóge yow doo dara ba noppi wax la loolu neex waaye nee na ma boo toogee ci suuf sëñ Cheikh Fall la ma ko wax de ne ku la fa fekk bëgg laa toroxal ba la ne wàccal suuf si nit ñi ne ko doo nit yow bàyyil jàmbur bi xaw ma foo jóge bu wàcci suuf suuf suuf fu mu jëm waaw ndeketi Cheikh Ibra li mu andi moo gën a wóor ci àdduna moo tax mu ne dangay ngay ba kenn du la mën a toroxal waaye nag doon sa bopp bañ a jéem a doon keneen xanaa xamoo li gën a soof ci àdduna mooy la tubaab ba waxoon <laughs> dafa am benn waay boo xam ne dafa def discours nee naay nee naay nee naay day wane ne dafa dégg tubaab am Sénégal yu soof yooyu li ñu gëm boo amee taalibe duñ la teg nit waaye boo tàmbalee di wax ay phrase yu jub ci tubaab ñu naan eh, ak dégg tubaab waaye dégg tubaab mooy lan gaa yi mook dégg pëla yem mook dégg wolofa yem mook dégg naara yem ndax dangay gis ñoo xamante ni ñi maanaam dañuy bàyyi lañu doonoon yëpp jóge ci àll bu xonq ba seeni bàyyi xamuñu lu dul ak taalibe ñu jàng ñëw def seen bopp tubaab mooy attanna sur sëñ Tuubaa nee na li ma gën a bañ ci la bokk na sur mooy def sa bopp ab nasaraan waaye waaje dafa ñëw di def discours tubaab bi di ko xool rek mu def discours tubaab boo xam ne boo gisee lam ca wax ndax tubaab yu xóot di di employé temps yoo xam ne yu xeewi yooyu nga xam ne tubaab yi sax waxatuñ ko man léeg-léeg rajo Sénégal ma dégg ko ci làkk tubaab di wax waxin yoo xam ne tubaab yi sax dañ ko seexlu léegi ñoom waxatuñ sax wax yooyu ñu ne ndeysaan ak dégg tubaab ah mooy li xew fii rek am na ñoo xam ne bu ñu commencé naan ko yàlla loo eh, see eh, eh, nangam rek defe nañ ne fi mu nekk nii ñoom. nekkatuñu ay nit léeg nga gis ko naan <laughs> waxal diw ak dégg italien ak dégg italien moom daf fi mu nekk nii booy wax tubaab bi sax dañu jàpp seen tubaab bi dañuy tiit waa ji dañ ko wàcce mu mu bëgg a wax bëgg a wane ne daa dégg tubaab mu naan c'est vous qui me choisissez man nomade et enfin ma destituez temps yooyu nga xam ne amatul ci tubaab te tubaab bi sax waxatuñ ko nit ñëpp di tàccu tubaab bi jóg ne ko waaw yow waaye doo tubaab yow liñ lay tàccoo man la man may loolu yow doo tubaab tubaab lañ lay tàccoo kon yow amoon ndam kuñu ñu tàccu ci dégg tubaab amoon ndam araab sax gis nga kuñ ci tàccoo amoon ndam nanu ndi ko complexe Cheikh Ibra nag moo dindi complexe ci ñun wax naa leen ci ay conférence yu bari ne leen Cheikh Ibra du tubaab du arab waa këram yi doo ci gis kenn waaw joxoon nañ ma ah sëñ bi <laughs> joxoon nañ ma de sëñ bi dafa baax rek ma ko sëñ bi dafa baax rek sëñ sawaa moom bu ngeen ko toppee <laughs> waaw moom li mu yéene nit yëpp. Mhm. ah. xamal na taalube diine mooy gëmu sëriñam. Mhm. waaw kay. jox ko juróom ak mbiram doy loo ko aw ndigalam. Mhm. murit bu yeewoo te dëgër day defub sëriñam. ba yàlla jox ko xoolam jébbal ko ak fetalam. fetal ga moo di fexe ñoo dee ka ja hmm. bay sikk sab sanga kay lee dox digalam dëgg la murit bu dee lee boppam booba yor na mbiram hmm. nangu na aw cangam boppam ca ab sëriñam dëgg la murit bu nangoo mbiram yor jaaja fay la te wàccu kooki mbiram saytul keneen ni mbiram hmm. mooy koo yegul keneen rey mooy góor xamul gën a hmm. waay dañ ma li nga wax baax na de loolu mooy ay gis nga lii nii lañu war a wax gis nga fi ne lakkul français lakkul arab yéen ñëpp xam ngeen li mu wax waaye ne naa di di di lu bëgg rey no danoo sonn nag waa arab lakk rek la nañ koo wax te génn ci waaw te ku jàng arab fi mu nekk nii defe nga ne ñi ci des duñ dara ku jàng tubaab dafa nga ne ñi ci des duñ dara ñun fuñ jëm ah loolu dafa metti dañ ko war a dindi ba mu set mu yu jëkk ya kenn du leen jaay dara lu dul ak taalibe bi ñun nag loonu won ñu gëm ko xaside yi xaside yi nga gis nii dama ciy waxtaan ak ku baax ma ne ko gis nga xaside yi bu fekkoonte ne ñun jàpp nañu sëñ bi comme dafa digle ne nañu jàng xasida wax na ko sëñ jaw sànq moo tax ma ciy dugg ñun daraja bi ñu am ci yàlla yëpp mooy daraja sëriñ bi benn benn benn benn làmb bu ñuy wàlli doon fa dara amul feneen foo dem doo fa nekk dara te boo fa wàllee ne ma euh, euh, daraja sëñ Tuubaa nit ñi xoolaat la kon nanu teg yëpp ci suuf tey tey tey tey tey daraja woo sëriñ bi tey darajal waa kër sëriñ bi te di leen delloo seen cër kon noo ngi sant bu baax a baax di gërëm bu baax a baax ndax sëñ am sa tamit day kilifa te nekk fi te mu war a ñëw sànni ci ay kàddu euh, soññaat nu dolli nu ndax moom ci soññeekat yu mag yi la bokk yàlla na ko yàlla gën a sàmm waaye loolu nag da ko donn ndax sëñ Cheikh Fall Baye góor ne woon na ma saa boo gisee nit yor dara lu baax bu ko laaj mukk ndax da koo for ndax neen lu baax kenn du ko for da ko naan foo ko jëlee rek waaw kon nag waaw <laughs> toogal sëñ bi <laughs> jaxate gi ñu ñu gisee nag sëñ bi <laughs> jaxate déedéet axa ah kay axa ah kay ah mënul ñàkk kon ñu bokk ànd ak yar ak teggin te déglu sëriñ bi bàyyi am sa jàpp fa doomi ngoone faal Seex Faal def ko ne làmp bañu taal tey ngeen ngeneew moo fay fexe Seex Faal amul moroom sàkk na mbër yu toll ni ñoom leeral na penku ak sawam lu yàqu dootul ñox ñoxi ndar la ko doomi jaaramay leeral na bopp jaara tey waykat wa sàmba jaara a tëx dënam mbay bëx bëxi Seex Ibra la dale ndar ba ca Dakar jàll gannaaw yoonu saxaar mbër mu fi rëy ñu ne la kaar Seex Ibra ngay laajey leeram nga sar ba si kees ku ñëw mu duy la ba nga fees luy nit ku ñuul nit ku xees ñéppay bawoo fa ngay mexeem sëñ Bamba ñëw Jurbel mu ñëw gàddaay këram ga dootul daw Seex Ibra Faal guddeeg bëccëg ñam ya di ñëw sëriñ bi xëy sàkkum pexeem mboolem murit yépp gëlëm kenn xamatul kuy sëriñam ku ne ne njee ja daldi dem àddina sépp jëx jëxiim mu daldi ngoy ca Mustapha ngir xam na yor na listifaa mag ñépp dem moom mu ne fa masul tuxoo ko yox yoxim ba xëy na fekke ab sangam tuubaa la togge woon ñamam Seex Ibra Faal jiite loo ñoñam diggante bépp gàgguy texeem ma ngay janoog tooli dërëm meññet ma raw junni dërëm am na lu weesu me am na lu raw lam doon fexe Bamba xaroon na koy ngërëm rilwaan pijil na koy këram uurul ay ne nga fag wetam am na lu raw yoolub joxeem yow ku la sopp daldi baax yow ku ku la wedde dootu baax Seex Ibra Faal waajoo gërëm muy gën di baax kay ko bañ day toroxi waaw ñu ngi jéggulu dafa am loo xam ne nag baal ma sëriñ bi maa ko doon ñaanal sama jëmmi bopp sëñ Abdoulaye dafa wax ne kuy liggéeyal sëriñ Touba murit ñoo lay fay ñun nag suñu yitte yi ci ëpp ci yëngutuwal sëriñ bi lañ toll dañoo toll lu mat juróom-ñeenti weer yoo xam ne dañoo amoon tawat jamono ji ba opéré suñu yaram bi wax dëgg yàlla jàppuñu woon li sax dinañ ko mën ma doon ñaan nag ci doole Seex Ibra képp ku fi ne ca man ñaa jàppale ngir jëmmi Seex Ibrahima Faal maa ngi lay laaj addiyaay Seex Ibra nga jëmmale mu sami jëmmi bopp waxuma nag ma nekk ba dee nga di ma dimbali dama koy jàppale ci bi nga koy mën waaw ku ko mën ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa ak Seera Faal maa ngi lay ñaan nga jàppale ma sama jëmmi yaramu bopp ji barke Seer Faal waaw rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wa tanala